bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina moolana mohammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawaani wa tamkin yéen bokki jullit yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkal ci bis bi di leen siyaare jiital ci sun mbokk mi doon julli julli gi sëriñ bu soobe di nuyu bokk yi fi daje yëpp mu mel ne li ma ta wax lépp wax na ko xanaa rekk dañuy am luñ jukki ci bis bi lim ci jukki weesuwul am na lu sëriñ bi wax ci biir muy wax ju kiimaane ju mot a bàyyi xel te lépp jëm ci tuub mu wax ne xad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa bi alihi wa sahbihi wa sallama anna man taaba min ummatihi xabla mawti fa innahu yasfahu fihi inde mumiti mayti loolu mooy képp koo xam ne ci aw xeetam nga bokk yàlla defal na la taw feex nga nangoo tuub bakkaar ya nga daan jëf bala ngaa faatu la rey yàlla la dal def baaxat waaye ni mu ko waxee moo gën a yéeme ndax dane yonent bi moo ma wax ñëw jëliwu ko fenn loolu mat naa bàyyi xel ana lan mooy tuub lu lu rëy la ci ab jullit te ab jullit war na koy bàyyi xel dikk na ci alxuraan dikk na ci hadis dikk na ci bari yonent wax na ne sunu boroom guddi gu ne day tàllal loxoom ñi doon mooy ci bëccëg bi di leen ñaar ñu jéggalu ko ba mu leen loola lay def ba ba jant di fekk jant fenk it ñu guddi gi mu tàllal leen loxoom di leen ñaanal ak ñu jéggalu bañ jéggal leen <coughs> jële na ci ibnu Abbas mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne isa taaba alxabdu taaba allahu wa ansa alxafasata ma kanu kataba min jaam bi bu jégguloo fas sa sunu borom daf koy daal di waaye ñaari malaaka yi mu ko booleeloon ñuy bind ay jëfu da leen di fàtteeloo lañ doon jëf ci lu ñaw dutuñoo ko xamate waaye cëréem yi nga xam ne bu yomal xeyaami mooy wax di nettali kenn ku ne li nga doon jëf day fàttaloo cër yi la jëmm ja doon waaye barab biñ doon mooy yàlla nga xam ne barab ba mooy nara doon seere ëllëg day fàtteloo barab ba la jëf jëm ja doon def ci lu ñaaw barab boobu it fa mu ci kaw asamaan nga xam ne moom it day doon seere ëllëg moom it yàlla da koy fàtteloo li jëm ji doon def kon nga xam ne jéggulu yàlla loolu war a bàyyi xel la hadis yu bari dikk na ci alxuraan it leeral na ko ba tegtal jullit bi ne ak jéggal daf ko war wa tuuba ilallaahi jamiian ayyuhal mu'minuun la'allakum tuflihuun waaye ak jéggalu yàlla yi day tax sunu borom bëgg la inna allaaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbul mutatahhiriin bari na ci addis yi yi ci rot li yonent bi wax ne dee leen jéggulu yàlla man day bis bu set danaa jéggulu yàlla téeméer yoon te moom yàlla jéggal na ko bàkkaar yu njëkk ak yu mujj waxaat ne yet ne ubbi nañ buntu tuub minal maxribi laa yuxlaqu hatta tatluha shamsu min maxribiha feek jant bi fekkiwul penku jëm sowu fekkiwul sowu jëm penku te loolu mooy alaamaatu saa ku tuub rek yàlla jégal waxaa na it ne attaa'ibu mina zanbi kaman laa zanba lahu képp koo xam ne yaa ngi jégalu yaa ngi mel nag ku ca yàlla yaa ngi mel ne kuy kuy ñaawal yàlla jële nañ ci Ibnu Abbas ne wax si yu moom nga xam ne moo royoon Seydina Amsa tey ku jege yonent bi sallallahu alayhi bindee ba mbir yépp sot jeex dafa bind yonent bi leetar ne ko man de dama bëggee tuub waaye am na lu ma tee tuub lu ma jaaxal ci alxuraan loo xam ne ni daal yéem na ma laaya boobu mooy walladina la yad'una ma'a llahi ilahan axar wala yaqtuluuna wala yaqtuluuna nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wala yasnuuna wa man yaf'al zalika yalqa asaama ñi nga xam ne dañuy rey bakkan boo xam ne bii jotewuñu moom dara wala ñuy njaalo wala ñuy def bàkkaar bu rëy ñooñu yàlla def leen a mu ne ko nag tëkkub yàlla boobu moo ma jaaxal ndax bu ma tuubee yàlla dana ma jéggal wala déet yonent bi bindaat ko fassaasa sunu borom wàccewaat beneen aaya ne illa man taaba wa amana wa amila amalan saalihan fa ulaayka yubaddilu llahu sayyi'aatihim hasanat bi ñuy wax loolu xam mooy ñi tuub ku moom génn nga ci loolu waaye ñi tuub te gëm yàlla te jëf-jëf ju baax yàlla day wetti wotti seen jëf yu bon yooyu def ko bindaat loola wax si mu dellu bindaat beneen leetar ne laay bi ab sart daf cee am ndax xaw ma man na maa def sart bi wala mënuma ko def suñu borom wàccewaat beneen laay ne qul yaa ibaadiya allazina asrafu laa taxnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru zunuba jamiian innahu huwal xafuuru rahim mu door a bindaat loolu wax si xamal ko ko mu door a jóge Màkka ñëw Madina tuub ba wax si moomu wax nañ ne Musaylimatul Kasaab moo ko mujj rey mu rey Musaylimatul Kasaab kon loolu rek li muy tegtale mooy ab jullit fu mu nekk war nay saxal tuub di ko bàyyi xel wéetal boppam gaaral sunu borom ay bàkkaaram te ñaan mu jéggal ko bu préféré yàlla na ko jëf jërëjëf jëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah